bu di ko jox sëriñ amul benn xale bu am fi te man dama mel ni politicien yow Mbathio Ndiaye man dama am ñoo xam ne xoolal barki Seydina Mohamed laa la su ma leen woowoon léegi léegi léegi léegi léegi dama la appal balaa juróom fan ñu nàkkal waaye duma la de barki Seydina Mohamed laa la giñal li ma lay wax su dee Mbathio njaay amul am na ñoo xam ne su ma leen woowoon léegi bii ma jàppal la ko di mardi walaay mardi bii di ñëw ma Mbathio Ndiaye suñ la tegut ci bangu principal rek lu ma lu ma la waxate bul ko gëm man am zoo mii maa la ko wax suñ la tegu res eh, eh, eh, suñ la lu rip ici repose Mbathio lu ma la waxate bul ko gëm waaye du la duma ma la rey dama lay bàyyi ñuy jaafat loo may joxe cas yi parce que cas yi dafa yokk ba cent quarante deux cas kon du ma la rey cas foori na ngay dilal sëriñ boo mën demal sëriñ bu dee yaa ngi faa jonkan di dem su ma lu nelam guddi lu ne ma yàlla di wan man juróom-ñaari solde laay sumay su nelaw su may nelaw damay jàpp mbaacu njaay jàpp laa la wax parce que mbaacu njaay man man sama maam Mamadou Jara làkkul olof ba nim dee deewee sama maam du Jara làkkul ba ni mu deewee naa ko Dominique ngay dégg kaay lekk ci bambara. ee eh, ala naakira cey yàlla mi faara suur naa man sama maam bambara rek la laaka ba karam surtout bambara bi ngay waxal ma ëlbatiku nag wax laa man surtout waliw laa xam nga Sénégal dañoo bëgg dañoo bëgg eh, xamuñ xamuñ xamuñ xamuñ xamuñ xamuñ doom ju baax waaye man réew mi ku ma fi gënul gënuma la man surtout suñ kooku Issa Dieye laa man surtout waliw piir laa sonal na la waaye dama lay rey maa la sànni koot maa la def lii loolu duma ko dégg sama maam lañ dénkoon papaay baa Ñas surtout afit nga dugg ordinaire la man xale yi li ñuy def maa ko fi njëkk di maa fi indi est-ce que kéwél yi dafa jib pattuma laaguma dara jotuma tey laa gën a mën a wax saa yi ma xëy wax ba xotteeku ndegam ndegam ndegam ñiy wax ba xotteeku ñoom la dara jotul saa kàttuma ak man yaa ngi waxak ak ku bëri bagage yaa ngi wax koo xam ne dara saf ko man sama armoire bi Mbathio Ndiaye suma ko ubbee ni sama yére yi bëree noonu la sama ndomba yi bëree man du ma wax yow xamoo ki ngay dilal waaye yow mbàcco du nee nga da am fit waaye english bi dafa ne what comes around goes around man ne naa la man duma ànd ak kuy daanu man saa yi ma jooyee nii rek bay waaja fomp yàlla bu fompal sama benn rongañ bi yow ndekete man li may wax di xotteeku ndekete yow jot nga convocation ca te trois heures nga wër naan Ablaye Diouba la porte Abdoulaye Diop porté la plainte de suba ngay comprendre du yow léegi da ngay kekku ne dañoo eh, eh, daabay au parquet waaye yow Mbathio Ndiaye o parke suba 15 xoolal suba premier heure yaa nga yaa nga yaa nga yaa nga sax ñoo ba tëj la xanaa coow dina xam yow di su suba ngay xam ne am soo mooy mën a dugalante su subaa ngay xam ne Amzo suy dañ la toog waaye mu ngi dëpp Dakar ba nooy suba première heure ngay wër di wax ne ab Ablaye Diop xaasa la convoqué yow plainte Ablaye Diop xaas ñëw gudde te laa Diop xaas dama bëgg na ma woo ma témoin ko képp koo xam ne tudd naa sa tur woo leen ma mu yóbbu mbaa ca police ma témoin leen jox leen preuve yi mbaa ca wax ne yéen ko kat yéen ko tëddoo ba pare enregistrement yi mu leen def yëpp ma jox leen ko ngeen yóbbu ko parce que yow dafa jot ñu tëj la nit ñi noppale dafa jot ñu tëj la nit ñi noppale ko parce que nit ñi sonn nañ ci sa kaa mbaa suba premier english bi moo ne what comes around goes around xoola loo def rek loolu lañ lay delloo Njaay na journaliste yëpp takku première heure brigade des meurtres Mbathio Ndiaye convoqué nga naan Ablaye Diop xaasa la convoqué yaa ngi dëkk ci koñu clinique coté bi troisième étage nga dëkk yow man sama doomi laay woo sax groupe ñoo ko bëggee noo ko bëggee laay woo dinañ la tucc tuccal ba nga nooy balaa ngaa wuy gis suba yow soo xëyee fekk sa oto ñu tojat ko sa bum la bett yow nee naa la tàncaat euh, nu mu tudd cantaakuli dinañ la dëbb ba nga nooy dinañ katt sa ne ba nga xeeñ ci gàdda sa braata dina xanaa mbaaco man naa investisseur bu mag bi Macky Sall na ma jox armée bi waay ma doj